يا رسول الله خذ بيدي فلم أجد غير خير الخلق لي سندي ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وذليل أنت معتمدي وشد فقري ولا آوي إلى أحد إني أخو ثقة أن تأخذوا بيدي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي لنا نحاسي يا كريم به درا وروح بذكراه على كبدي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر عن مدد أخرى الحضارات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نيجي سنتي الله وباخ di nuyu ñi ci jotaay bi góor ak jigéen mag ak ndaw waa Kédougou yëpp di am kontante ci xotti ay màndin yu bari ngir fekk siwaat leen beneen yoon comme ni ngeen ko bëggee yàlla bëgg ko ba yombal ko ay xéewal la yoo xamante ne buñ ko doon lim duñ ko mën a peeg ñi ngi sant yàlla ci xéewal yoo yëpp di jagleel nuyoo muqaddam yi fi teew yëpp waaye balaa loolu rek ñi ñaanal Cheikh Mbaye Guèye mi nga xam ne mi ngi fi daaw ak ñun yàlla moom na bakkanam ñu xam ci moom mbaax dem na fi mbaax boobu amee njëriñ yal na ko yàlla yërëm te xareel ko aljana di nuyu muqaddam fi teew yëpp cheikh baba ndaw niki noonu di jagleel nuyoo cheikh al Xuseyn nga xam ne ndaw la boo xam ne wane na ne yar biñ ko yar mat na wane na ne mokk na ci yoon yàlla moo tax mu àndak ak magi taalibeem ci jotaay yu mel nii nga xam ne jotaayu yàlla la waaye jotaay la yoo xam ne dafay yokk gëm yàlla ci xol ndax boroom xam-xam yi ñoo jàngale كذا على الخير كذا على الخير اجتماع المؤمنين يزيده كما في الدر الثمين برم الدر الثمين نانا دجالو تي جوتا يو بوكنا تي لو يوك غام يالا تجام يالا يي لب لنن يالا ماي كوي فوندماي غام يالا تا ديمب واخنا نتي لول لو بري كون نيي نيي مقدم في نك يب ak shérif yi fi nekk suñ mbokk yi góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla bu baax ci xéewal yi comme ni ma ko waxe di ñaan yàlla mu jàpp suñuy loxo jàpp suñuy xol wommat ñu jëmale ñu ci kennal ko ak ci yoon bi nga xamante ne moom la bëgg te gërëm ko alxuseen daf maa wax ne ñoom liñ tànnoon ka Maodo mooy faydu ak jeexi jeexitalam ci ndaw ma ne lu gën a yaatu lool faydu ak jeexi jeexitalam ci doomi aadama bu nekk lii faydu ak li nga xam ne moom lay faydu di junju képp ku ci yegg rek bu dee ndaw nga di nga doon ndaw bu baax bu dee mag nga di nga doon mag bu baax bu dee góor nga di jigéen di nga doon lu baax ndax faydu mbaax ak cosaanu mbaax rek ci la lay dellu kon bu ñu waxee jeexitali faydu wala faydu ak ndaw dañ naan faydu ak doomi aadama bu nekk lii faydu doomi aadama bu nekk bu ci yeggee rek dina yegg ci mbaax waaye dina yegg ci defar boppam yàlla subhaanahu wa taala ci xarañam ci ay jëfam dafa sàkk doomi aadama bam sàkkee doomi aadama dafa am ay mbir yi nga xam ne moom la dajale ci moom bokk na ci yim dajale ci moom mu def ci moom bakkan bakkan boo xam ne dafay am ay nazaat dafay dugg di daw di dem ci li nga xamante ni yàlla bëgg ko ndax bakkan yàlla ba ko bindee gannaaw bi mu xel ne ko may kan mu ne ko man maay jaam bi yaay borom bu màgg bi ba mu bindee bakkan ne ko maay kan def ne ko yaay yow maay man ci yàlla dugal ko safara nangami at génnewaat yaay kan mu ne ko yaay yow maay man ba mu ko xiifalee rek la ne ko yaay kan mu ne ko may jaam bi yaay borom bakkan boobu nag dafa soxla ñu yar ko yàlla wax ne qad aflaha man zakkaaha وقد خاب من دث من دساها بكم بنا يلا دفي تدوم آدم بي كن رك موي تخي عندك بكر بو موي كو فخي بسلل كو لابل كو ولس لب لو خمانتني دف كو يتلمل واي كو كو جار لا سي سوبو سوبو يون يا خمانتني تي لي جيني لندم تي لي دفي بكار دو عندك تخي مكو بور نغا عندك تخي انفو نغا رخص بكر بو سوني النفس واحملها على ما يزينها تعي سالما والقول فيك جميل بكن بينكو ورا نيغال بوكو نيغال تكو تي يون بيغا خامني يالا موم لا غرام واي بودي موم لاي دغلو بيغا يوبو تي يون بيغا خامني موم لا يالا دي غرام نخ كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لن يدري أن السم في الدسم وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم برنا لنا بكان برفتر المؤمن لباخلا تفكنا بوكو توبي ستسكر موشنيك بكان باللمنغ رك دفع عندك باني خم pour nga génnee ko ci yoon boobu teg ko ci yoon yàlla il faut nga delloo ko ci yàlla mi nga xamante ne moo ko moom yaa ayatuha annafsu almutmainna irjii ila rabbiki delloo boobu nak naka lay amé ba yegg ci mu gërëm ba pare yàlla gërëm ko mu yegg ci mat ba nga xamné lu jugee ci mom yëpp mat la ben jeexital la moy faydati Cheikh Cheikh Ibrahim allah taala anhu kenn ci sufiyanke kay magi dafa wax ne إن النفوس إذا اعتادت ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما bakkan yi buñ demee ba niinal leen bàyyi bàkkaar yi mooy bàyyi topp seen bànneex yi nga xam ne moom lañu bëgg dafay mujj di déew ci malakut dellu ci si boromam indaale ay xeetu xam-xam yu jëriñ yoo xamante ne ci yàlla rek lay jugee ndax fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bu bàyyee bàkkaar yi bu baa day àgg ci fa alhamaha taqwaha te dëgg-dëgg taqwa mooy xam yàlla dëgg-dëgg taqwa mooy bañ a bokkaale yàlla yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amalu wa takunanna min alxaasirin bal illaha faabud jaamu yàlla mooy nga xam ko mais lii la wax yi yow yonent yàlla Muhammad ak li ñu wax yi woon ñu la jiitu ci ay yonent yi mooy ne bu ngeen bokkaalee rek bokkaale day sippi seen jëf yëpp te yàlla loolu la wax yonentu yëpp bu leen bokkaale ñàkk bokkaale nag mooy kennal yàlla dégg dëgg kennal wa iz bawwa'naa li ibrahima makaanal bayti an laa tushrik bi shay'an an laa tushrik bi shay'an bul bokkaale man yàlla dara ñàkk bokkaale nag comme ni ko waxee heure bu nekk ne bokkaale bëri na ay pàcc bokkaale boo xam ne mooy nit ki di jaamu leneen lu dul yàlla loolu ngay jaamu lu dul yàlla mënu laa jëriñ donte ne yaa ngi koy dimbali ko yàlla wax na wax na ne yaa ayyuha nnaasu duriba mathalun fastami'u lahu inna alladina tad'una min duni llahi lan yaxluqu zubaban walaw ijtama'u lahu wa in yaslubhum dubaabu shay'un laa yastanqidhuhu da'fa at-taalib wal matlub yàlla mi ngi lépp indi qissa misaal bu leer ne li ngeen sàkk di ko jaamu walis yàlla muy xërëm yi won bi gën a ndaw wala won bu ndaw boobu noonu mënuñ koo bind te won bu nangu woon ci ñoom dara sax mënuñ koo nangu kon kuy jaamu da ngay jaamu yàlla bañ a bokkaale bokkaale euh, mi ngi mi ngi ci nekk yéeféer bañ a jaamu yàlla wala sax di def dara ngir ngistal te génn ci jëf jëf ngistal kenn mënu see yàgg lu dul ku dem ba gis ne jëf ji ki ko def ak ki ko moom yëpp yàlla la rek subhanahu wa taala waaye bokkaale bu gën a màgg mooy nit ki di gis am ak leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala te faydatu mawlaana cheikh ibrahim faydatu mawlaana cheikh tijani faydatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàngoro yi rek la ñëw pour saafara te xam-xam ñaari xaaju xam-xam la sayyidina abu hurayra wax na ne dama jëlé ci yenentu ñaari xeeti xam-xam benn moom mooy ma leen jox ngeen dégg waaye beneen moom maa ngi ko téye bu ma ko waxoon tem sax ñu dagg sama fut bi wala ilmu ilmaani ilmu zahirun wudiat lahu saxaifu masmuun wa mutaradu wa batilun jalla an samcin wa an nadarin bilruuxi walqalbi muxtasun wa munfaridu mahabatu alawliya aqlaamuhu wa bihi xidman li rabbihim fi lgaybi qad sajadu ñaari xeetu xam-xam moo fi nekk xam-xamu zaahir boo xam ne fu ne rek mën nañ ko faa waxee làmmiñ la soxla buy jàng ak nopp buy dégg ak bët buy gis mooy xam-xamu sharia wa sharia ilmun laa yazaalu muazzaman walakin lubaaba lubbi ilmu alxaqaaiqi wa fi lxalqi ilmu sharci yunsabu mutlaqan wala xaru fi lbaaqi alqadiimi almawaathiqi وللمصطفى العلماني خص بظاهر وللمصطفى العلماني خص بظاهر والآخر قد أعطى لبعض الحقائق فبلغ بالألف... فبلغ باللفظ فبلغ بالألفاظ إذ هو ظاهر جميعا جهارا لم يدع أو يمارق وبلغ بالإمداد الآخر مطلقا بلا أحرف وبلغ بالإمداد الآخر باطنا بلا أحرف فافهم فافهم وفكر وصادقي تقدس روح العلم في الله أن يرى تعاطاه آثار الدواء والمهارق ومن يدعي العرفان وهو مشاهد سوى الله في دعواه ليس بكاذب في دعواه ليس بصادق من ne am الشريعة lu naan xam-xamu كل يوم تك لو جان من اول ما يجب على المكلفين يفر الله جان لو جان اول واجب على من كل فان يفر الله جان لو جان نانغام نانغام لو جان فصل في طهارة طهارة قسمان يجان الله لول رسول نوبو اك دب اك جيمين واي اما بنان بو خمنا يجي يجل سهلا لكنه بدون ذوق ما دري والذوق يغني فيه عن معبري يجي يجل موتي يجل نتس يجي يجل بو امو جانب منو وضعه من المصطفى العلماني خص بواحد والآخر قد أعطى لبعض خلائقه يلا ما ينجون يا رحم حم بن مو مجخن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وضح أي باب لكو يقلي بوخ نان اسمعوا وعو بقلل ولا سخ نتاو من جوتا من خم نتاو ولا بوخ سخ بلغوا عني ولو آية وهي بنا منك mooy bi nga xam ne ilham la bi nga xam ne nit mooy gis yenentu mu may ko ko mooy bi nga xam ne màgg na ba nga xam ne mënuñ koo denc ci téere dig mënu koo bind kayit mënu koo àttan mooy bi nga xam ne sell na mooy xam-xamu xam yàlla subhanahu wa mooy nit ki yëgg fi nga xam ne gisatut am ak leneen lu dul yàlla te bu ootee ne dara nekku fi lu dul yàlla mu gisaat am ak leneen la xool ndax loolu amoon na fi démb fekkee amu fi démb na xool ndax dana fi am suba bu dee loolu lépp amul mooy ne loolu amam gi du dëgg faydati Cheikh Tidiane loolu la ñëw pour jàngale loolu nag ku ci naan ba màndi mooy ne yarum ku ci naan ba màndi mooy ne baax nga ku ci naan ba màndi mooy jub nga ku ci naan ba màndi mooy ne teg nga ci yoon waaye fekkee dangaa oote ne loolu lépp mu ci yow te sa xaal kenn xemeemu ko sa jëf kenn xemeemu ko li nga oote du dëgg li nga oote du dëgg ndax oote làmmiñ moom ku ne mën na ko waaye raasib ci jëf yi lay amee oote làmmiñ ku ne mën na ko waaye raasib ci jëf yi lay amee moo tax bañ demee ba àlaaxira yàlla lu mu wax ñenn ñi lima taquluuna maa laa tafaaluun nit li ngay oote sa làmmiñ fekk sa jëf yi dëggalaguñ ko rek ay waxi kese la ma ne faydat Cheikh Ibrahim wala faydat Cheikh Tidiane loolu la ñëw pour jàngale te doomi aadama bi mi ngi ci sàggante li fekk xamagut namu namu yàlla ci moom namu namu yàlla ci yow nag mooy wa maa umiru illa li yabudu allaha muxlisina lahu diina xunafa sellal sa jaamu yàlla kennal yàlla jëng walis yoon bi nga xamante ni mooy yooni jubadi namm namu yàlla ci yow mooy waabud rabbaka xata yatiyaka al yaqin jaamu yàlla ba am ba ba ba jugee fi jaamu yàlla ba jugee fi namm namu yàlla ci yow mooy nga mën a dégg dalika bi anna allaha huwa alxaq نمو نمو يالا تي يوم مين من الدق هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه لا يالا مو جيت يالا مو يا يالا مو فين يالا مو نبو نمو نمو تي يالا موي نغا دم با خامني وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه تنم نم بوب بوكو نتي بنتو يغلا ياتو يتي يغلا مفردة مولانا Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Tidiane may may yàlla la boo xam ne yàlla may na ko ci may may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane indi tariqa boo xam ne comme yoonu góor ñi ngir oote jëmale ci yàlla góor ñëpp benn wax la ñuy am qul haazihi sabiilii ad'uu ilallaahi alaa basiratin oote jëm ci yàlla teg ko ci njub Cheikh Tidiane moom ba mu ñëwee indil ñu istigfaar indil ñu salaat ala nabi bu bi sallallahu alayhi nekkoon fi waaye muy ndigal bu dafa yokkaat ci kaw loolu ndax yàlla saa yu la mayee nga sant mu doon lu mu ko doon nag mooy ñii ñëw ci mujj ak jamono comme tànneef la woon seen tànneef bi dana nekk ne dinañ dund xaal bi nga xamante ne ñeneen jiitu woon te baaxoon moom lañ doon dund moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ne ne sama xeet lépp yiw la ñu jiitu ñu ci yiw ak ñu mujj ci digg bi nag la nëx nax nekk fi nax nax bi di jeexee nag mooy ci xaqiqa ida jaa nasrullahi wal fathu dafay tajalli mooy faydatu Mawlana Cheikh Tidiane mi nga xam ne boo wax mënoo ñàkk wax ne Cheikh Tidiane wax na bés ba waxtaan ci faydu ne faydu dina ñëw ci samay topp ba nit ñi dugg ci tariqa bi ay kuréelu kuréel faydu bi nag dafa am màndarga dafay ñëw te fekk ne nit ñi ñu ngi ci xat-xat ñu ngi ci dund bu tar xat-xat yi xat-xatu xat baatin la bëgg a yegg ci yàlla muta la bëgg a xam yàlla muta la bëgg a am sëriñ te téere rek moo la doy sëriñ te téere lim denc la la mun a wax waaye mënut a tontu say suwaal téere mënut te tontu suwaal li nekk ci biir rek la la mën a jox léegi xat-xat yooyu noo koy dundee mooy yàlla daf laa baaxee kum ko jox koo xam ne say suaal yëpp lay tontu bu doon junne tamit mu tontu waaye tontu boo xam ne xaalam sax moo lay njëkk a tontu ay waxam foogu moom nag Cheikh Tidiane bu ko waxee mandarga yi mu waxoon ne da ci ànd yëpp da cee feeñ ndax Mawlana Cheikh Ibrahim bu ñu ci ñi oote faydu beeg ñi ci jaarat ndax loolu lépp dafay gudd waaye jeexital faydu rek lañu bëgg indi tey ndax bañ gëjee waxtaan ci faydu sax yàggut waaye ma ne faydu boobu ba ko Cheikh Tidiane waxee ne dana ñëw ñu bëgg mbaax yépp nekk ci tariqa bi seen xol da cee aju ñu ngi ñaan nekk borom buñ munta nekk borom ñu gisanteeg borom buñ munta gisanteeg borom ñu fekkee في فايدو بي دي تاكي ناخ ني مون سي ام سين والا ناخ فايدو بي يرماندلا بي جوغي سي يالا كما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها خيرو نك اك يرماند بوب دو كل نيك كل نيك رك دنج سي مونا ياغ ديدت يختص برحمته من يشاء دافا ام نيكو مومو ازلا بو نيي غيسنتي موم رك دنج خامي ناخ فشات تعلم ان الذئب ياكلها والذئب yaalamu maa fi shaati min tibi gàtt gi moom xam na ki de ki ne moom bukki bi daf koy lekk bukki bi tamit xam na cafkaay neex bi nekk ci gàtt gi kon ñun xamoon nañ ne yàgg-yàgg faydu bi danañuy jël waaye faydu bi tamit xamoon na yàgg-yàgg ñu nit danañ xam ne xaay bi ma ne ñu ko ku mel ni Abdullah ibn Alxaaj yàlla wan na ko faydu comme ni wane woon من عرب الحاتمي آه، آه، آه، ختم ولايتي مجاب لي موي موما موي بروم بام دمي با خامني دو بروم موي لي جازال ندير بروم صاح مو نيك سي سلسلام واي بام دمي با داي بروم خامل نكو نو ياي بروم فايد في مي مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله عنه ولا شيخ ابراهيم نك شيخ تياني يم وني وني faydu bi buy ñëw day ànd ak moom yëpp dafa tombe ak jamono jafe-jafe àddina jafe-jafe àddina mooy mi ngi fekk ñuy génnee ci guerre mondiale war a jëmaat ci beneen ndax ci diggante bu tar boobu la faydu feeñ ba nga xam ne bàyyi sax bind na ne dafa doon mbébét dem ziyaara Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ne xew-xew bu mag Cheikh Sukayrij bind ko leetar ne ko Cheikh Tidiane موما يوبنتي تي يو يعني يوبنتي وجدت الشيخ تي انما نالا اخر قدومك يا ابا اسحاق يا حامل السر بالاستحقاق السر لن يحمله غيرك في هنا فاقم هنالك واسقه يا ساقي انا بغنيو بعد بغنيو انا باي مي وخولني اموالا توصلني لحضره الشيخ دون الضعف يا الله لمين يا الله ما يكون خير بو خمنا زياره شيخ التجاري لك زيارة أرباب التقى مرهم مو شيخ بن بلغو شيخ تيان من من لا يخل سنيو بي يعني من خمنا يا إمن بور بي تيالو بودو مي خلافة شيخ تيان عنوان إرث الشيخ نور ظاهر في وجهه فانظر إلى عنوانه يكفيه فخرا إرث أحمد شيخه فهو المجلل يوم في ميدانه mooy ne mot boobu mooy ne mooy mooy xalifa yàlla ci kaw suuf waaye mooy mbootu Cheikh Tidiane bi nga xam ne ku bëgg nga xam boo yeggee ci moom xam ku bëgg a xam boo yeggee ci moom xam ñu ne ko mbóot bi moom bul tiit yaa yaay borom keneen di ko enwaat nandaleel gaa yi foofu sa heure mi ngi ñëw ndax mbir mu ne rek am na heure idaa jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun ñu bindaat ko yeneen ne ko yaa xaamila sirri هو المستحق له وليس يحمل ما حملت من أحد أخر قدومك حتى تنجلي غمم عن القلوب وسلمها إلى الأحد أنا عمي شو يا شيخ إبراهيم موي خليب جابلين دلين يا الله سبحانه وتعالى لول بو امي nga doore ñew akhir ko doom nga nax mo bi mom ya ko mom su ko yit gi cheikh ibrahim mu nek ci fu soori fofu min aqsa bilad al gharb mu dem taxaw ci kanam Cheikh Tidiane ne ko yaa ساقي القوم laa tabxal alaya bima saqaytahum fi nnawa yaa saaqiya alqawm قد نال منك أبو إسحاق أمنية في يقظة ما نالها الغير في النوم يوم يالا جخ بيتبو يفاتل ممد رجال الله من قبل كونه وساقيهم من كل شرب منقع بتبو يب ويجب يكيب mu ne ko nga xam ne yaa ngi nandal gaa yi boole ma ci bul ma eh. ne ci sóor abu ishaq am na loo xam ne ñu géntut sax am ko moom mu am ko ci dëgg-dëgg muy faydu bi mooyaa Cheikh Ibrahim nag ba mu demee ba ndigal faydu bi ñëw nga xam ne ndigal waajur bu baax jiitu na ci ñaanu waajur boobu sëbëb la rek waaye faydu bi moom ñëwal na bay ndax dañ ko bind ngir bay bay tamit ñu bind ko ngir faydu bi ndax yàlla ba waxe rek ne na lépp nek rek ci la ñuy nek waye wa kullu shakhsin daiman muyassaru lima lahu xuliqa fa huwa yuxdaru ku nekk nag li la yàlla bindee rek daf lay yombal bàyyam alxaaj abdullahi bi mu demee faas daf koo ñaan ne sax indi na ko ala wasuli فاسد دار شيخنا المأمولي شيخ التجاني زرته ونلت منه العلوم ونلت منه الفيض والفهوم ونلت منه الفيض أنا فيض بي ودنا أما كوريك موم لا فين يا كارم أما كوم يبو فين يا شدو موم بروم لا باتاي من نياني واجور جيتو نكو waye baye ci bopam ay ñaanam jitu na ndax wax na ci ben lettre kenn ci mu xadam baye mi ne ko yalla mom faydu bi ci loxo cheikh tiyan موتاخ من ابا العباس ميزني بما تدري بحق الله لكون وتلون موي فايد بنتي فلم نذهب افد لصحابي يا امامي فيضة فكلهم عطشان لا زلت مسندا سمعت على يعني تخاو دا مر دا ما بغي نبدل فايد مو جيم ولكن يقولون ان ماي ماي جي مدنا لي ديس موي فصدع بما تؤمر فور للاوتيل مو جيتال كو اي واخ تي قصيده مفتاح الوصول دي واخني وتاتي قريبا فيضه الختم هيئ بتفريغ اغيار فتحظى بموضعي فان الاواني قد ملئن بغيرها الا فافرغوها تلتقوا كل انفعي فاني ارى من فيضه اليوم فائضا ولم يلفذا قلب نظيف والسعي عليكم بحب الختم واسعوا لذكره فرادا ومثنى واسمعوا كل مسمع عليكم بالاستغفار صلوا وهللوا فذلك نهج الختم غير ممنع ولا تبتغوا من ذكرها نيل عاجل ولا آجل واسعوا لمالك منفع ومهما بدا شيء سواه فعده فلا شيء إلا الحق في أي مرجع وسير طريق الختم في القلب وحده فلا كد في هذا الطريق بالانفع ولا تخشى غير الله ليس لغيره اصطراف فللفعال قلبك جمع فإن لم تجد إلا الإله محركا ولا ساكنا تلقى الجمال لأجمعك من الليل بتيرك شنو rek فايدة الشيخ jege faydat Cheikh Tidiane bi ñëw ñu des mooy mu nuzulan fees na ak i ndox defar leen seen suuf si ngeen waaj pour tool bi bu ñëwee ngeen mun am gàncax gis naa ne ndab moom ñàkku fi ndab am na waaye ndab yi dañ koo feesalee lu jub loola xam nga bu dee koo xam ne ab nga seen boo xam ne balaa muy nelaw faaw mu naan soow gis ko toog fële di maye soow piir bu neex ba pare mu amee kaasu ndox ba pare ne dana am ci soow bi dafay nax boppam dafay tuur ndox mi mu dem jël ci soow mi ndab moom am na waaye dañ koo feesalee lu jub loola faydu baa ngi ñëw waaye bu gisul place du toog de nu ngeen koy nu ngeen koy waajalee mooy bëgg leen Cheikh Tidiane bëgg leen ko fàttali leen ko fàttali leen ay xaalam nga xam ne dana guurloo seen xaal ndax nit danay ànd koo xam ne dafay guurloo sa xaal ibn Ataillah waxoon na ko wala tu tusaaxib illa man yulhiduka xaaluhu wa yadulluka ala allahi maqaaluhu bul ànd ak koo xam ne bu waxee wala nga gis xalam bu waxe xirtal la yalla waye xalam rek do la burlo waye bari na istighfar mooy ngeen raxas xoli lol loolu taxalli la bu ngeen pare istighfar bu ngeen raxase bam set ana ko am sa sal bo balé sal bam set war nga ko lal mu rafet mu ne fa sallu sallu ngeen lal lalu rafet yi mooy ngeen rangal xoli yi rafet te mi amé ci salatu ala nabi wa hallilu gannaaw loolu ngeen dellu ci yàlla subhaanahu wa mu ne ko lii mooy yooni Mawlana Cheikh Tidiane loolu loolu ko def ngir bëgg àddina jaamu yàlla ngir àddina bu ko def jaamu yàlla ngir alaaxira tamit bu ko def baax na am na lu ko gën yonent yàlla Isaa dafa romb nit muy jaamu yàlla lu tax ngay jaamu yàlla mu ne ko bëgg aljana mu ne ko bëgg nga bëgg nga mbindeef borom kuy jaam yàlla dangay jaam yàlla mu ne ko ragal safara mu ne ko ragal nga mbindeef soxla wu ma leen ki mu soxla mooy kuy jaamu yàlla ngir yàlla kese te bàyyi noonu la bëgg ci yow moo tax moom ba muy wax ba mu rombee ci ci zone bi muy wax di béskarina qad marartu zahiba wa aiba ka misli nahri joliba naadaytuhu thumma bilismi alazami taqarruban hadiyatan wa qad xami ngir jege yàlla rek jaamu yàlla yi def ko ngir jege yàlla wala tabtaxu loolu aajilan wala aajilan mu ne waaye ci ndox boobu loo gis lu dul yàlla rek sànnil boo sànnee lépp nga des ak yàlla boo sànnee lépp nga des ak yàlla lu dul yàlla bu feeñee sànnil bu ragal lu dul yàlla loolu ñu ngi lay yóbbu xaat ci tawxidul afaal ku dul yàlla nekk fi du soppandiku ودمي نك من دبيسوتي ولا نون لجدي يالا لو ييغاتو ما غيس يالا لو دانو غيس يالا يظهر من شيء على شيء لدى شيء وقبله وبعد سرمدا وصلت الى الفتح المبين كبر وعظمي الله من موي ماني ليغا خامني سيد ني واي باي لول لا لول لا جوخ نيت ني كوم واجاي لا بو نيوي لول لاي ديف سيد بوب نك بن نيوي ba feeñ ci borom borom dafa delloo lépp yàlla du jaamu yàlla te jaamu yàlla bu baax luy jikkoom mooy lu yonent bi wax alxalqu kulluhum ciyaalullahi ahabuhum ila allahi anfauhum li ciyaalihi min def yëpp njabooti yàlla lañ ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki gën a mun a jëriñ jaami te munoo jëriñ sa moromi jaam njëriñ bu toll ni nga dogal ko kiiraay yi dox ci digganteem ak boromam moo tax Cheikh Ibrahim ba دي اكسي accès ci loxoom daf اي وخم فانا ولله الحمد عبد الحضرة الإلهية لم يسترقني غيرها لا أريد منكم جزاء ولا شكرا وإنما أجري أن تكونوا لله في الله من غير التفات إلى الهوى من جامو بي الله بلا وإني عبد الله عبد المليك حقيقة فلا حظ للأغيار في القلب لا شيء أرى أنني عبد الملك حقيقة فلا حظ للأغيار في القلب لا شيء خل بكل الأمو تتر يالله رك لما ليش أما تتر رك تتر يالله بلن دوغل تبان بلا رك من الجامعة في يالله بلا لدوك في بوب جام لوما تجام بك بك موي لما لدوك يالله جام لوما góor dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne duumu keneen jàngloo ko kuru duumu yàlla bugguma ci yeen fay ma ci yenn sant ndax sama wareef laa nekk bu na ngeen maa bugg a fay ma ngeen nekkal yàlla rek nekkal yàlla boo xam ne du ànd ak gesso yàlla ku gesso rek mu bàyyi la foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne آه، آه، آه، لا يزال لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه ما تفوق هاي دي جانغالي ني كوي جولي ورا دي جيسو بو جيسو رك لابي باين لا فوف بن فايلا انتين ما ني نيكال يالا رك باغا ديلو سي بانيخو بكاني باغا ديلو سي بانيخو بكاني بغي يالا بغي يونس صلى الله عليه وسلم باغا ديلو سي lëndami xijaab yi ngeen nekkoon comme ni ngeen bañee ñi sànni leen safar nam na nam am ci yéen mooy may may gi yéen a ko moom wax na ko ci benn leetar bu bëri bu yaatu laa bu ko wax ne may may yi ngeen doon dégg ci wàll yu xam yàlla bi ngeen doon dégg ci wàll yu jiitu yi moo ne nii seen kanam tey ku sàggan ba raw la raw na la moo tax sëriñ bi doon wax ne ومن فاته الشيخ الخليل فإنه تداركه في ذا الزمان محال سجن دق بباي رولا دوكو دبات دوكو دبات نم نم بموي محمد نب جمال إن شاء الله ولمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا فتعلموا هل في الخلق أحنا عليهم مدى الدهر مني والبعيد كما دنا doon na mun a mu laa am ci jaam yi mooy boole ñoom ñëpp wammat leen jëmale leen ci yàlla yàlla mi nga xamante ni moo baax moo bëri yermande ci ay feeñ waayam loolu bu ma ko defee nga xam ne doo gis ku ma gën a yërëm jaamu yàlla yi ndax fi yermande bi di tëbboo la ku jógee ku sóore nag laa ci yemale wa maarufuhu siyaani fiihi garibul muctifiina wa zuqtiraabi kenn ci woykat yi Mauritanie def na ko yaay ki nga xam ne mbaaxam xaaraankat bu jege bi ci deret ak ki sori ñoom ñëpp ci yem ñoom ñëpp am seen wàll ku ñëw rek jël sa wàll ma ne bàyyi boobu noonu ba ñëwee ànd ak ndigalam ndigal yi mooy lënt lënt yi jafe-jafe yi xool yi amoon yi nga xam ne dafa fay dugg daf koo fekkaale mooy bu nga xam yàlla mu tëla ficc loolu la ñëw pour dindi xam nga xam Abdoulaye Sayd yaayam Xadijatu bint Muhammad al Kabir wax na xalaat ku ko xamal yàlla rek yóbboon na ko ci xaalaay dee ba muy yëg ne ruuxam mi ngi rocceeku ci moom xalaat ko xamal yàlla xanaa mbir mi jafe woon na boo juddoo boo juddoo wala misaal bu a jege ba ñu ñëw ci yoon bi am na dëkk bu ñu romb boo xam ne lu ma trente personnes ñuy rang ku nekk teg si pour ndox xaw ma nag gis ngeen ko de gis ngeen ko ñu doon nelaw moom gisuñ ko waaye romb nañ benn dëkk fii soriwut lu ma trente personnes wala quarante ku nekk ñu teg si pour rang ndox kooku boo nekkoon ndox dafa yomb ndax yow sa kër am na fukki robinet la gëm ndax yow boo soxlaa ndox rangoo ci ubbi robinet yenn saa yi sax xale bi ubbi robinet bi fàtte ko une heure de temps muy dox bo xalaté ñi doto yàqati ndox bala ñi sax war nga xalal hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne la tufsidil maa walaw kunta amama nahrin jaari bul yàq ndox donte ne ci ci ku romb xaal boobu noonu nga xamné ci xal boobu lañu misalé bo boo juddoo ba nga xam yàlla nga gis ku la ku la jës bu benn tarfata ayn rek nga dem da ngay jàpp ne affaire bi dafa yomb waaye ñi nga xam ne dox nañ ci ay ati ati ati ati at ndax gisuñ borom boo leen waxee ne dafa yomb duñ la gëm bàyyi ba mu ñëwee man a xadijatu boobu xalaat ko xamal yàlla yóbbu na ko ci xaala ba mu yëg mi ngi dee waaye mu fàttaliku li ko bàyyee moo xoon ne ko dem naa kër alxaaji abdullahi gis naa doomam mi waaye am na kuñ naan ibra jamono tabiwul ba mayee ko mel ni moom mu ne mu xalaat ne eh, ibra mii de moo dundee ba gis ko rek dana ma xamal yàlla من نول يالله تيمبا خم دلوا وارك روحهم بام دجيك باي بخم يالله بيتك باي بيتك المدينة نان مدينة أسست بالتقوى تأسيسا لا شك أن عليا بابها سيسا في ذاك معنى دقيق رائق حسن فاضرب لها الرجاء باغي الخير والعيسى مدينة يني خسين انكورا قال يالله أمو بين سكن بنتن بموين ولا سيدي عليه السلام bu loolu may wax nag am na maanaa bu sew bu rafet bu natax boo ko buggee xam doxal nga jëm Madina fekkee yiw nga bëgg ndax boo fa demee di fa fekk xaal bi nga doon namm ndax ki fa nekk xaalam mooy wa huwa cheikhu in shakawta xijaaban qalaba shakka fi l ilahi shuhuda هو الشيخ إن تجئه لمال إن تجئه لعلم نلت منه كفاية ومزيدا لكن فانا كما كي خامني موي سيرين بيغا خامني بو بو جامباتي كيرا يي دوخ سا ديغنت يالا سكي daf koy ëlbati mu nekk seede gis yàlla subhanahu wa taala bu dee xam-xama la indi mu may la lu ëpp sa njort kooku mooy borom faydu bi borom fayda boobu nag ba mu ñëwee indaale may gi ne nit ñi dékku neen gaa yi dékku may dafa jot mu ne luy faydu mu wax nangul ko topp ko ndax wax na ne ko wa naxnu nashhadu lahu naxnu na ci yiñ seede ne Cheikh Ibrahim moo ñu raw te ñun ay doomam lañ ci dëgg-dëgg te xam nga lu tax mu nekk bàyyam ba mu ñëwee bind na ko leetar ne ko mu ne ko waalam bi anna faydata alcheikhi kasaxaabi والمطلوب وجود الأثمار لا مجرد وقوع الأمطار فانظروا كيفية طلب الثمرة في حال البساتين الحسية إن كان وقوع الأمطار يغني الإنسان في بستانه عن إزالة الحشيش وكذلك البساتين المعنوية فالتصوف لا تقوم بنيته إلا بالعبادة والتوحيد والزهد والورع من أبو خمال لفايدة ne fayda Cheikh Tidiane bii ngay dégg nga xam ne mooy indil may may euh, xam yàlla bii nam namuñ ci gis ko ni muy mel xati rek waaye liñ ci namu mooy mu taw taw tamit namu ndox mi wàcc ci suuf rek dañoo namu pour gàncax yi béj ji génn mooy nag xool leen ci tool yi yi ngeen gis ak seeni bët ndax toog sa kër rek ne am naa tool asamaan si taw na heure góob bu jotee heure góob bu jotee danaa góob ndax loolu dana maye dana maye ngóobeef من يكون فيض بي تمت مزن من السنة الغراء منطرة أرض القلوب سماها الصدق ما درجة فيض بي دبو لبو خانة نيري توخولي كو دبو أنت وال نجاني دي واجلي سنتولي تي ظاهر سخول بي من لكو واجلي تي باطل مو يتخلي تحلي أدو تتجلي ما خمني فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول وما ثم بائن من يكونك تصوف اي كلام بتي ما تصوف من تتحول لدن عبادة دفع أم وين شريعة فهم مات توحيد دفع مات حقيقة بفهم مات وطبعا يوهن اسلك النهج بالشريعة دفلا نحو الحقيقة وروا من وين شريعة ثم يدون ماشي حقيقة وروا بي موي خم, خم. fi mu lay yóbbu mooy ci ruuxu xam-xam waruwaay bi mooy tudd yàlla yi fi mu lay yóbbu mooy ci yàlla waaye yaa ngi koy dugg bëgg dem Dakar ne doo dox doo yëg avion doo dugg oto doo jaar ci benn waruwaay ne da nga yegg da ngay nax sa bopp waruwaay boobu di la enu di la yóbbu Dakar mooy sharia moo la yóbbu ci xaqiqa lu dul loolu rek da ngay ci sufiyanke yi la waxoon ne di oote ne sharia ci nga nekk àggagoo ci xaqiqa matagoo otoraay bu par la wekki sànni rek waaye bi oote ne ci xaqiqa nga nekk nekkoo ci sharia otoraay sax far amu fa ay mbibet rek la ma ne moo naa Cheikh Ibrahim ñëw ne moom xijaab yi la ñëw pour dund si faydu bi ñëw ba faydu bi ñëwee nag njëriñam mooy lan mooy njëriñ yu bëree bëri bëri bëri bëri la برم محمد جبريل ما ذل معارف برم خم يلا خيط خم يلا برم بينا عندك تارك دنا ديت فكنا ما نور تبوك على يلا تخوم تدار شيخ محمد الحسن بن احمد الخديم برم تيسير يلا قد الفنا نكنتي تيينا طريقة طريقة الشاذلية جنتي نيوش طريقة تجانية ben mbokam ñëw na ko man de li nga baye tariqa Chaziliya dem ci tariqa Tijaan dafa maye mu ne man limay yem du loolu mooy sa ñak nek Tijaan moo yem ndax xad gabaw tariqa li smaat ma tatejan aynu fi fatam la machi direct ma andukun allah allah allah na tariqa bi may deg mu tariqa Tijaane ku ko jël ni rek allah allah rek ngay am allah allah moy lan du baat bi ngay wax ci làmmiñ rek allah qul wa darni wujuda wa ma xawaala in kunta murtadan buluga kamali فالغير دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال wax yàlla ci xol bi gannaaw làmmiñ bi sànni am gi lépp sa gannaaw bu dee da ngaa bëgg a mat ndax boo settantalee dëgg dëgg settantal dana gis ne lu dul yàlla neen lu dul yàlla neen lu dul yàlla neen la nag dafa am ci lu mu la war a yóbbu ndax mun nga ko wax sa làmmiñ waaye wax làmmiñ wanewu dara Cheikh Ahmadu Xasan ma ne dafay wax ne waradna cheikha ibrahima hima li nashraba faydahu xatta nahima يزيل عن يزيل عن عن القلب الليل البهيمه يزيل عن الحجى الليل البهيمه من يندي ركن شي مولانا شيخ ابراهيم عندك مروتر بوري الله يسين مر موي بغ بغ بغ لقاء سين مر موي بغ اتصال سين مر موي بغ شهود والعيان سيدي جس يب دغ رافل ما هو الحق لا تلفي سواه الى الرمز لا تلفي سوى بوب شرين بغيك من يوم عندك مر مر جوج مالين اسبيكر من امانه يوم في تسو حجاب مي كوكو مي غودو غنول ابراهيم دنكو دنكو دنكو دنكو ديندي دنكو ديندي سي خيل مي تو نون لاكو ديندي بب بام تحقق بل هي الحقيقه فهو عين حقيقه مي بنن الشريعه نال كنتي دبلو شيخ ابراهيم بن الحقيقه من نينكو باي مو شيخ ابراهيم مو يجمع حقيقه مو شيخ ابراهيم مو يجمع حقيقه شيخاني من ابا مين خم يوم دي دومي شريف دي ستي انت على محمد صلى الله عليه وسلم ني اللي طريقه دي يوم من نوتي مولانا شيخ ابراهيم دان يوم صح نجك دار waye dem ba ñew nek talibé di liggéey ci toli baye mën ta takaliko kosi ba ñu ñew limu wax baye moy من كأس صافية منها سواه سقي فليسقى بعد الظما صهباء صافية يكون شاربها سكران لم يفق صدقت بالفيض منك مذ أتيت فلم ينكر لفيضك الدار عندي غير شقي لأنت أصل لدوحات المريد نذل ومن ندى الأصل تلفى كثرة الورق بحر المعارف كف بحر المياه كفى منه الشراب ومن بحر المعارف لا يكفي سوى الغرق فعطف على قلب الأنس اليوم كذا بالعطف أطلب يعني منك أو نسق من ne نيو ñëw ànd ak mbëggeel ak mar bëgg nga nandal ma kaas bu sell boo xam مر yàgg nga وخني موي kiiraay yi mu ne sa faydu bi man gëm naa ko ba mu feeñee te ku ma gis muy weddi faydu rek damaa gis ne ko ku texee di la ndax ku texe am gis-gis ma bu xoolee mën a ràññee dina xam ne lii dëgg ci yàlla la nasrun min allahi wa fathun qarib nasrun min yaay seen cosaan te ku bëgg kuy wër ker boo demee ba toog ci tàdd garab yi yaa ngi ca ker ga yëpp mu ne ko géeji ndox yi de naan doy na ci waaye géej yi nga indi muy géeju xam yàlla dara doy ci lu dul lab rek bàyyi woon koy toon daf naan kaan góorgóorlu rek fa jidde sutxan wa bil mawla al karimi thiqi njëkk balaa dara di xew góorgóorlu gannaaw góorgóorlu la óolu yàlla delloo ko ci baamam mi yaa man lahu kullu aslin fi l ula ariqi kada balaa kaan فالحب منك دليل الفتح بقي بما ان دارك وين يا الله فتح وفرح ان فتى مع الحبيب بحال غير مفترق كي بقي بقي جي بو ñoré rek takal ko gulen waye ñu koy wax ci bir noy xamé yalla subhanahu wa ta'ala nako faydu bi wa midfa'u عن الفيض من بعد يرمي متى فاض كل الصحب في غرق لكنما خير باب أنت داخله ذكر الإله بحال الفرد والحلق الله أسأل للشيخين معرفة يا ربي فاسكن من الشيخين في الطرق منكو كم الشيخ التجاني بيغا خلنا موي فيض بي فسوري لي تولو ساري واي بساني نيب الله بل سي جيجو خم الله واي بنت بو بي بوي دوجي فيض بي موي بنت تودو يالا بنت تدو يالا ci wéet yow kese boko mëne mënee tuddu yàlla ci mbolo te lol moy mandar ga ñu faydu bi mata tatihim yawman yatun min bidarihim tara al amra min chamsi dhahirati adhara tara fitatan sakra bi dicri ilahina wa kullu fatan yulfa lada dicri azwara mun fa fa mu ne boo ñëwee madina li ma la wax ci faydu bi yëpp du ko gis ay ndaw yu jeex ci yàlla subhanahu wa taala mandi ci ci yàlla subhanahu wa taala gisatuñ am ak leneen lu dul yàlla bàyyi mu ne ko duggal ci yoon boobu yooni tudd yàlla boo ci duggee mu tegal ko ci ñaanal ko ne ko yàlla nga yegg am say bëgg-bëgg te bëgg-bëggam mooy mu xam yàlla subhanahu wa taala te ñeneen ñu dul ñoom ñëpp dañoo dem ba ñàkk yaakaar ci xam yàlla ñoo dajeeg bàyyi mu delloo leen seen yaakaar ما الله السيد منى وعندما يئس او قد كدت ايأس من نيل المنى وفقت فما دام بخد ولا سخوت ما خد كلام يالا ديبل ما دجك شيخ ابراهيم بام دجك مون لا وخ شي غناو لو غود موي ني بما نال نالا خم يالا بو غاو بو غاو من وفي غد الليلة أو في الثاني سقاني المنان ما أرواني فغبت في أشياء من الجنان ذي الخلد عن نفسي وعن إخواني وعن زماني وعن مكاني وعن مكاني وعن زماني وعشت في نعماء لا مداني لها من النعيم في الأكوان ولا يطيق وصفها لساني ولا يطيق وصفها لساني من ba ma waxee ne du garanti naa la fatu ci guddi googu wala guddi gi ci topp yàlla nandal na ma ba ma màndee ma ma lab ci ci géej yoo xam ne ma lab ci géej yoo xam ne ñoo gën a neex nga xamante ne moom ngeen dégg faddu sama bopp faddu jamono faddu barab awma benn ku ma ànd ak ci xaal boobu ku dul yàlla subhanahu wa من يبغي تبغل للدرع أمو في نجري الله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ينام بودمي تنجريا ما لم تجانا عثمان بنيوي أقول له ما واليوم باب الفتح باب واحد تنم بنت فتح بن بنت رجلة متفرعون يسقي بلا يسقي بدون شقاق بنت فتح بن لم عندك مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه لخ شمس الهدى طلعت بمغربها فأنار الجو بالأذكار والأشواق جنت وجب بي خملا يالا مو صوتي تي سو جنت مو فنخ ليرال جو جي ييب تي تود يالا ليرال جو جي تي نميل بيغا خامني باي ديف نكو تي جامي بور ني ام كو سين ديغنتك سين بوروم لا من اراد ان يكون معي في حالي فليسلك طريقي في الأقوال والأفعال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى وصول مرضات الله تبارك وتعالى mar googu ngay am gannaaw bi nga xam ne topp nga ay ndigalam bàyyi ay tereem roy ko ci ay jëfam roy ko ci ay waxam yu rafet nga namm yàlla subhanahu wa taala di ko ut boo doxee jëm ci yàlla boobaa yàlla bu doxee jëm ci yow dajee bu amee hunaka talasha lépp dafay mujj doon benn rek ba tey faydu boobu ma wax ne jeexitalam ci ndawam mag mooy ku ci yegg yegg ci mbaax te ñëpp mbaax ak gën la ñuy wër bokk na ci njëriñ feeñu waaye lu tax mu feeñ comme ni ko Baye waxee ci kaashiful albaas wal xikmatu min zuhuri hadihi alfaydati fi hada alzamani alfasidi ضعف الإيمان في قلوب الناس وكثرة الفرق الضالة والمضلة وهذه الأمة أمة مرحومة فأفيضت إليها المعارف والحقائق كي يرجعوا لأصل فطرة الإيمان من حكمة بنك تقلنا وفين فايد به تجمد ياقجي موي خلي دنيا الله dëgëratu ci gëm yàlla dëgëratu ci yàlla ci comme du dajale jaam yi ci réer yàlla leen lu mel ni faydu bi ak borom may leen ay xeetu xaqaayiq ñi xàmmee ko ràññeeko ko leen ay xeetu maarif ñi xàmmee ko ràññee na benn namu namu la am mooy ñu dellu ci cosaan li muy gëm yàlla subhaanahu wa taala kon te gis ne objectif bi dëgg-dëgg mooy bëggal xam ne bëggal gëm yàlla rek ci xol yi wala ñu am am salaati léegi Oustaz Youssouf jàng na ko li am am salaati sutun jannat tajri min tahtiha al-anhaar xaalidina fiha abadan lahum fiha azwaajun mutahharatun wa nudxiluhum zillan zalila gëm yàlla boobu bu ñëwee bu xasee ba am lu ci war a tegu rek mooy jëf wala ñu am am saalihaat wala ñu am am saalihaat inna alladina amanu wa amilu saalihaat wala asna insan fi xus illa alladina amanu wa amilu saalihaat gëm yàlla bu xasee ba dëgg sa jëf moy wane ne yow ah yow kat dem mujj ngaa ci wa faydu bi kon ndaw Kédougou bi bu bëgg a baax ak ndaw fu nek fu bëgg a baax na soobu ci faydu bi bu ci soobo delloo xolam ci ciosanu gëm yàlla ciosanu gëm yàlla bo mu jàngal ko nakal wara jëfé a jëfee jëf yu baax waaye ku wax ne dellu nga ci ciosanu gëm yàlla te cër yi nangoowuñ ko loolu loolu neexut a dégg loolu neexut a dégg ka yarji'u li asli fitrati al iman من أول يوم باب الفتح باب واحد بني ليرال باي من حكمة بيب ماي دم تشوشو سان جم يالا جم يالا نك بو سخي تي خول بف لامين بي وخكو خول بي فاسكو لي ديس رك موي تيري دي رج رج لو غير سابقو سابقو الى مغفرة من ربكم دوخ جمتي يالا سبحانه وتعالى دا فايدو مولانا شيخ ابراهيم وخنا نه شريعه دسي ام والله نخ بظاهر الشرع والنور المبين وربي دمي يري واي يروي دفا ام تشوسان بو خامني موي شريعه ابو ظاهر بي شريعه ابو ظاهر بي دسي ام والله شريعه مولاي وخ جف جفي واي حقيقه مولاي يوبو تشي لو كون ياري خم خم لموي لين كوماسي خم خم شريعة خم خم حقيقة كو يالا باخي دغ مو بوكو سي ني غاني موي كو يالا خيوالي ياري خم خم ييب ان ام خم خم شريعة ام خم خم حقيقة با نا خم ني في لا فك ياري ام ياري نوب ني دغ ياري ام ياري تانك ديكو دوخي ام ياري بوب ديكو غيسي با نا خم سا ظاهر ني نورو سي جامو يالا سبحانه وتعالى ني ديكو غيس سباتن نون لاي نياك تاخاليكو اك مشاهده جمال الله تبارك وتعالى ومشاهده كماله دو تقلكو جيس يالا فو مونتي نيك واي تفك ان اربو بيب سا ظاهر من جف جف شريعه من وري بو باغ دوغي ني بظاهر الشرع والنور المبين ربي لي شريعه لا لي حقيقه لا ني سوبو سي من نك دا مالين بولين نياري ليب تا باي واخون نه يا أيها المجذوب إن لم تسلكي فأنت أبتر فويك فاسلكي وأيها السالك وإن لم تجذبي فأنت محجوب فسائر وانصبي وإنما الكامل من قد جمع بين المقامين فهذا من سعى جعلنا الله من الذين قد جذبوا حقا ويسلكون نعم كونتيني تبارك الحاج عبد الله آه، آه، عبد الله الحاج تبارك شيخ يعني تبارك انت صلى الله عليه وسلم mu boo soobuwut kon zahiri sharia bi buntu dañ ndax wax na ko ammaa man yantasib ilayhaa wa yartakibu shay'an min muxaalafati shariati l-mutahhara fa ushhidu llaaha wa ushhidukum annii barii'un minhu ci man nga bokk sharia sa yoon nekku si lu mu digle nga utal moom mu ne maa ngi leen di seedeel ne di seedeeloo yàlla ne seet naa ci moom yàlla buñ nekk ci lu bàyyi di seetee si bàyyi mu ne fekkee nag majjuur nga nanguwoo def aadaab yi ni mu waree aadaabi suluk dog nga mooy sama def dog na bugu la wax dog na noppi ci mu ngi lay wax wax yërmande pour nga dëppaat pour soobu ndax yërmande gi yow nga xam nag soobu nga rek jël tariqa tijaan baax nga di wérdu boo góorgóorlu pour yeggu ci jël bu maxjub nga te يانتي ولقد خلق الانسان في كبد يانتي تشونو بوتي بوغي ген موي داغي دوجو سي فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم جيخ سي الله سبحانه وتعالى دوجو دائرة الجمال سيفا سيف دائرة الجلال سيف دائرة الكمال واما بنعمة ربك فحدث mune bay mune ku mat moy ku dajale ñaari maqaama yi di sharia di haqiqa sharia al haqiqa bi haqiqa al sharia ku mat moy ku sobu am jës del ci moo motax mune ku ku ku ku ku ku ku jeex ci yàlla donte tane ben laxda la nga wat di dox melni ni maxjub mu ne mat مديجي لو واجد تجي سرنيان بصيري قد نال غاية ما يروم المنتهي من ربه وله اجتهاد المبتدي أم لغاني دون أدياب مو غرغو لو غرغو لو كتام بالتاي كو خمغ نباي رو غاني باي مو نكوك مو يكو مات مو نه ماني نيان يالا بولي يشينا خمنا أم من جزء بار بولي كاكسو بوات تبارك الشيخ تجاني جمولا بركة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم kon faydu bi ba ñëwee rek la gën a mooy yëkkati jeng gi mooy topp leneen lu dul yàlla wa bi yurfaau aljawru alazimu wa innahu bi faydi yanaalu diinu rafa liwaay sama faydu bi lay diine ji di amee drapeau yu kawe mooy ne yow mi nekk ci faydu bi sa lislaam moom waxatuñ ko rafet la war a def sa imaan waxatuñ ko rafet la war a def sa ihsaan waxatuñ ko rafet la war a def ñett yooyu yëpp ngay boole mu di benn nga mën a yegg ci kennal yàlla subhaanahu wa taala mi nga xamante ne ahadun la lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moo tax bàyyi mu ne ba ko yàlla enee luñ ko en dafa boole xam-xam yëpp xamaltu sirra xaatimil wilaaya جمعت بين الذوق والدراية أنشدني لسان حال الجاري تحدثا بنفحات الباري امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاض مني سره فلا أحد يقصد يقصدني ما عرف الله الصمد سواء الكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار سواء الذكران والنسوان سواء الصعلوك والسلطان لو شئت عم فيضه البسيطة وأدركوا أسراره المحيطة علم ذاك علم ذلك فلان وفلان كذا فلان ما معك العيال ومرة أخرى ترون عجبا من فيض ذا الختم إمام النجبا وذلك كلا فيضة التجاني ممد مدد مدد مصطفى العدناني وذاك كلا منة المناني أحمده في السر والإعلان لما إنه موديس موين موت مولانا شيخ التجاني xam yëg dama xam yëg sama làmmiñ di wax man gaa ñi seen làmmiñ yàgg naa wax ak ñoom may waxtaanee ci ëpp ni xéewal yi nga xamante ni ci yàlla rek la jógee mu naan man naan la waajo waxoon bu ma doon mbalka fees na bu ma doon fees na doy na fees naa fees naa lii nag jagle yàlla la li la li la mu ne yàlla jagleel na ma xam-xam xam-xam te bokk na ci mandarga faydu bi nga am xam moo tax ku bëgg a bi il faut nga am xam-xam wala nga boo boole ci ndax na ne moom ñaari sëriñ la am alquran ak sunna te xam nga loolu mooy dayoo xam-xam من خامو كم جنا خم ياريوه سما سرين تي باطن ما التجاري تجاري بطاق الكوكب من قد خصني بالعلم خم خم بمرنا مرنا مر جو خم لي يا خمون بني نيارا ونيب نيو قلب تقولنا في يارا ونيب شو كيرد مفهوم كلامي مين خم مربو مونكو فكم طائرين فكم طائر فخرا يعد مزاحما لكم في المعالي والجناح له قصه برمة التي تكلم nan sa morom la bu don pitax la ngay naw muy naw mom ay laafam saison nañ ko bu yag kon xam-xam bi madna mu ne ko ilmun ladayka fadlun ladayka wa ilmun zanahu amalu fa yusawi ka fi ma xussahu ahad am nga nga neen am nga xam-xam bo xamne likoy taral moy jeffe kon jagleel nako xam-xam madna mu am ci ndigal nak عبد قد لقي اي من ilmi وجاءه الاذن بدون والمتقم وخ duni wal moo ba mu nekkee ci zone bi ci Conakry wax na ne am na dëkk bu ma dem ñu dajaloo pour ma nasiixa leen qad xadaru bi shaxsi wal janaani li man yaquuduhum ila al jinaani man mii mooy man mu leen omat jëmay leen aljana mu ne maa ngi wax nutqan mu ayyadan min al adnaani id huwa nutqu aalimin rabbaani damay wax nii du waxi ku nekk de waxi borom xam-xam koo xam ne yonent boo koy dëgëral kooku ko dëgg jëriñu moo tax ولحن إذا وخان وخانة كدبلو من خطب في القلب واللاجة ما لا تولج حباد الإبر في دعوة إلى سبيل الهدى يهدي بها الله قلوب البشر لا يسمع الشيطان إلقاءها إلا وأدبر ولا وفر لباي دي واخ شيطان دوكو ديغ لودور ولا غناو بو باخون باخ بو بو باخون غن موتاخ دغلن خم خم اك سوكونديكو lu mën a nekkal ci mbaaxu yàlla mu nekk lu mën a nekkal mu nekk tubaab bi nga xam ne yàlla may na ko xam-xam ba mu mën a bi nga tubi turi nit mu indi la turam ool la ko may na ko tasaruf ci téléphone mu nankaa nekkal mu nekk léegi yàlla mu ko may tubaab bi may ko machine may ko avion buy naaw may ko loolu lépp nga war a gëm loolu Mawlana Cheikh Ibrahim ne la lu ma a nekkal muy nekk ngay sikk amoo ci wàll <laughs> benn géwél dafa waxoon ne jëwén Seydi Aliou Ka Serigne Aliou Ka xam la doomu Baye Maska benn géwélam dafa waxoon ne man nii senegal gii ku ma fi tamoon dëmm senegal ñëpp suba ñu moytu la ni Baye Maska ni mu toll mu ne Baye Serigne la ni ñu di sikki ba tey xam ne ni ñu seen bànneexu bakkan dafa teew Baye mu ne in qultu wax mu nekkal mu nekk bu ko doon topp fii suba lañ fiy jógee waaye mu ne yàlla daf ma doy moo tax ma delloo yàlla loo def moo gën a rafet mu ne waaye heure boobu maa ngi wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ca di ko waxee baat yu kawe ya di ko waxee làmmiñ bu kawe ba di ko waxee fu mu fu mu nekkee bàyyi moom mbooti laa ilaha illallah royaat jugee ci man ba nga xam ne toll naa foo xam ne kenn du ma jublu lu ne xam nga yàlla mag ñeeg ndaw ñi góor ñeeg jigéen ñi buur yeeg baadoole yi من بون نسخ ليش يتو عم فيض بالبصير فيض شخص يعني بدك من يخون نخنو من يخون نخنو وين من يالو هنا ولو شئنا لنذهبن فايدفك من لو شئت رجل كونخ ما دام دمنا فيب بني وحنا فيض لا تسارع شي عدنا لب كون كون بنك صح امنا نكو فا خمون موم باي خم فايدو فايتاي نك سنغافور ني ام جوتاي فايدو Amérique di ko am Espagne di ko am te waxuma ay xeet nit ku ñuul di ko fa amal waaye xeetu dëkk boobu ñoo ko fay amal kon kay mat na waaye matagul dëgg balaa muy mat moom mooy wax ne fa yati masihun والرجال رجاله بدين الإمام الهاشمي يتدين هنالك عم الفيض لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع متقن فقيه قون شيخ طالب قونه شريعة مت نب خم يالله سبحانه وتعالى فيض متقن dana daj waaye masagut mooy li may wax ni nak kum neex nga xol ko weddi ko la am na xol xool sax di ko weddi waaye am na ñu ko xam am ñu ko xam te bu ngeen bañ di gis ay kentan ci faydu bi heure bu nekk nit ñi di bëgg di dugg ndax bëgg la te bëgg ku ku ku yalla nam rek da nga bokku ci ñi koy xëncu da nga ci ñi koy xencu nit ñi di sóobu di xam yàlla xam yàlla boobu di leen yar di defar seen jikko di di leen soññu ci def lu baax Mawlana Cheikh Ibrahim di ko wax di wax ne boo demee ba am fatxu may may xol yi mat na waaye joxal jëmm ji cëram ahsini taat na nga rafetal jaamu yàlla di julli ci mbooloo ah di jàng alquran nga xam ne mooy yëddul kummali di rafetal jëm ci mbokk yi di dundale ci yàlla subhaanahu wa taala di teew jotaayu wazifa di teew julli juróomi di teew jotaayu tudd yàlla yi di liggéey ngir fàggulu dagan loolu mooy jeexital yi nga xamante ne faydu war na koo feeñ xanaa kay lii ku ci yegg faydu jàngale li yegg nga ci mbax muy mag ngay ndaw kon buñ jàpp ne faydu bi ndaw yi rek ko moom dëgg la ootekat bu nekk ndaw ñi la soxla ndax ñoo jëm ëllëg waaye mag yi fi nekk nii ngeen am 70 ans sax xam leen ne am ngeen wàll ci faydu bi te bu ngeen bëggee yegg rek ngeen yegg ndax loolu du Ousseynou moo koy maye du du Baay Baabu moo koy maye du Cheikh Ibrahim moo koy maye du keneen moo koy maye loolu yàlla moo koy maye subhanahu wa taala bëgg dara ut ko am ko rek ci ngay mujj loolu garanti la damaanun min allahi laa yataxallaf waaye gannaaw bi nga xam ne taalibe yi soobu nañ bàyyi di leen wax am na yoon bu ngeen di jaaree ci yàlla mooy la la tarxala la tarxalan min adamin li adami fa inna daaka fi'lu majnuunin ami من يوم مجذوب اوصيك يا مجذوب ان لا ترحل خواطرا الا الى حق على sa xaatir bi jeexal ko ci yàlla boo demee ba am yàlla ku am yàlla ñàkkatoo dara boo demee ba am yàlla loo def rek yàlla jiitu la ci bul jugee ci ñàkk dem ci ñàkk waaye jugeel ci sa ñàkk gi dellu ci am ak yàlla gi waaye tudd leen yàlla te fekk ne seen xool yi am na ci wàll Muhammad ibn Malik fal tadkura awraadana wal qalba minka ahdira teewalal sa xol ba ñenn ci borom xam ne dem nañ ba àgg sax قبول ذكر بالحضور الا سبحان الله حسن ما قبول ذكر بالحضور الا تال ومن على النبي صلى من borom xam-xam yi nangu zikkar zikkar tudd yàlla pour nga am ci ñu nangul la ko mooy da ngaa war a teewal sa xol mu wa man ala annabiyi salla fa dicru zeyni duunahu yufiidu azaahu lil qudaamisil mufiidu lu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquran yaa ngi teewlu teewloo yàlla daf koy nangu waaye mu ne zikkar tàmm nañ ci teewlu waaye borom xam-xam su yaa ngi ku yëggut ci zikkar teewlu sax bu la téré zikr ndax zikr ñak téwlu dina la yóbbu ci zikr ak téwlu moy mu ne ko Muhammad ibn Malik fal tadkura awradana wirdu yi ñu jox la ni nga koy zikré ni nga jàngé la ilaha illallah ni nga jàngé salatul fatixi bu ko def ci làmmiñ rek waye na xol bi téw nur ci mana yooyu mana yi bo ci nuré mana yi dana la yóbbu ci ku mana yi di junj wal qalba min ka axdira génnal ci min fii man may tarbiya sëñ bi ne ma génneel ci mbindee fi rek ma dem tëju na ana Cheikh Ibrahima ma dafa tëju mu ne te yaa ngi te yaa ngi génn ci te ko weddi fii ñu bëri tarbiya nañ fi ñoo xam ne warante goon ci liñ nam jamono bu ñuy tarbiya lu munti yëngatu du yëngatu waaye gannaaw buñ delloo seen cosaan ba dellu ba ba ba ba manqué leen lu yëngatu rek ñu xool la nga xamoon ne yàlla rek a fi nekk moo tax ragal ti motax ala wala taxsha xeer pour nga yegg ci il faut nga dem ba xamne dara nek fi lolu yalla way lu dul lolu da ngay ragal rek gannaaw lolu lepp fayda bi ñew xam yalla ñew bo xame yalla lim lay yobé moy ragal yalla lim lay yobé moy bëgg yalla ku bëgg yalla mënoo ko feñal lu dul ci ay mindeefam kuy top yalla ne da ngay defal yalla wala yansuranna wa yansuruhu nasru boobu boo ko bëggee def keneen te jaarale ko ci mbindee fii doo ci yegg kon mooy nga yegg ci yaru yegg ci mbax yegg ci rafetal sa jikko boy wax wax lu rafet boy jëf jëf lu bax boy hal hal hal lu gëna kay hal xaal la ndax su fenke yi man tanafasa min ghayr hal saqata min al jalal eur bu nek mo nga am hal yu kay hal nag du coore du yuuxu lool ngeul benu hal rek la xaal bi gën a kawe boo ko defee tekk ngay def te fekk na waari daat yi heure boobu la gën a mun a daw lu nekk nga xool di gis biiram nu ngay gisee biteem lu tubaab yi demee ba defar ay mbir yoo xam ne nga xool nit ki mu won la biiram boo yeggee sa xaal bu dëggoo mbiram moo gisati rek mu won la biiram ndax zahir bu bu fi nekk rek baatin la teewal te jëli zahir bu fi nekk te jëli baatin la teewal boobaa loolu lépp mënoo koo am lu ne li bàyyi dénkaane ci nga nekk أوصيكم معاشر الأقران بالصبr والصفح عن الإخوان mooy xaaj bii ngay def pour dund ak nit ñi mooy muñ xam ne nit ñi boo nekkee ñoom munuñ laa ñàkk tooñ man aachara nnaasa laaqa minhumu nasaban coono yooyu nga nangu koo enu ci muñ ba def ndigal yi muñ ba bàyyi tere yi muñ ba nga xam ne wansu wansu jamono yi lay feeñu yëpp danga ko muñ bi sabri wa safxi sa morom la sa xarit la yéenay ànd tukki mën la ñàkk ànd ñun mënta ñàkk ànd daal dañuy fexe di fexe muy rafet rek mooy jéggale jéllale nit ku nekk boo boo ne da nga da nga luñeeti biiram ak biteem doo des ak kenn ndax ku bugg ndox bu neex kese nga dem dëkk boo xamante ne ndoxu Saalum baa fa nekk naqadi naan rek wala naan ndox bu naqadi rek wala mar rey la jéggalante yooyu ci résultat fay dugg la xamante comme ni ma ko waxee léegi xeet yëpp u ko bàyyi waxee woon ahlu jarma kaza dagombaal xayru fihim amma wa jaani yoruba kaza kumushi wangara wa jaani manfushi wa jaani kutkuli wa farfara wa ataw kaza ko gunjaa wa meen faydara wa ñun ñëpp ñu ngi nii utee ay xeet utee melokaan te kenn ku nekk mi ngi xool sa morom bët bi xool sa bopp loolu bu mënta am ak jéggaleeg muñalante agagoo ci résultat faydu bi mun nañ laa pikiir fayda bi pikiir na la waaye njëriñu pikiir bi boo feebaree mooy boo jugee nga dox